kenn ci kuréel yi ne Tamba euh, gagné na ci te li nga xam ne jàpp nañ ko mooy au-delà même ci salon économie sociale solidaire tournant boobu laaj nañ ñu ay salon régionaux wala lu ñu mën a wax salon national ñun ñu jàpp ne loolu lu am solo lay doon ndax liggéey bi ñu bëgg def ak jumtuwaay yi nga xam ne ñu ngi koy dollil ñi ne ci waar wi di liggéey pour mu gëna am solo foog échange yooyu am foog qualité produit gëna gën a dëgër gën baax foog également ouverture vers d'autres pays mën am té loolu lépp pour mu am foog nit ñi di tassé di diso di waxtaan di def échange de bonnes pratiques loolu nak euh, bu ñu ñëwee ba fi daf ñuy gëna a ñaax ci euh, yéene bi nga xamné président Macky Sall am na ko ci képp ku nekk Dakar rek muy ñi nekk ci marché yi di jaay muy ñi nga xam ne ñi ngi ci bopp kër yi wala bopp koñ yi di jaay kenn ku nekk ñu mën la indi lu méngook la nga bëgg liggéey te nga mën ko jëfe rawatina bi mu ci tegee li ñuy wax model maanaam bu kenn defandoor yow rek sa ruq na ñëpp àndandoor bokk su ko defee eh, yenn jafe-jafe yi nga xam ne wax nañu ko ci région yi ñu jaar te notament muy jote ci financement wala financement bi am par parloo wala eh, mu jafe ci nga jot si loolu lépp day daal di gën a oyof moo tax ba eh, ren ay CRD la ñu def mais 2020 incha allah dinañu yegg ci gox-goxaat yi ba nga xam ne modèle économie sociale solidaire ak euh, travail chaîne de valeur bi dinañ ànd ministère ak acteurs yi ñu tegandoor ko benn par benn ba nga xam ne dina mën a indi ay saafara ci yi ñuy faral di nemmeeku ci wàllu financement bëgg nañu aussi changer xar kanam bu baax a baax microfinance ndax nit ñi dañu jàpp rek ne financement da ngay jóg rek wuti mais jàpp nañ ne financement benn warul nekk loo xam ne danga am soxla bu jàmp nga ne naa wuti financement pour faj ñaar financement warul nekk loo xam ne ba ngay jóg di ko wuti leeragul ci sa bopp lan nga war a def financement égal développement war na wuteeg loo xam ne yow da ngay dem jël rek ne ah bu sottee baxna bu sottiwul wul na loolu lepp nak dafa am lu ko jiitu loo ne war nañ ko mën a euh, encadrer acteur, yi ba nga xamné ne bu ñuy dugg même ci système microfinance bi dina fekk ñu taxaw am encadrement technique am fonds ak doole ak kàttan bu len may ñu jëm ci lolu té fonds d'appui à l'économie sociale solidaire bi nga xamné 2020 dinañ ko commencer euh, liggéey euh, dina ci am wàll bu baax a baax kon dinañu dinañ gëna consolider dal liñu gis liñ ko dégg fi ci Tamba dégg ko également ci yenen région Tamba ñom jagleel nañ leen 200 millions ci liñu IMF placé prix pour ñu mëna expérimenter euh, liggéey bi ak économie sociale solidaire bi mais placé prix ci bopom euh, so xolé montant yi nga xamné mettre nako à la disposition des 14 régions du Sénégal tout le 3 milliards 750 millions pour Atom ren ça veut dire que li institution de microfinance moi une ñu demande d'agrément pour mën a ci financement boobu suñ ci ba élargir assiette nous demander financement financements. Nous devons sur suñu wall, programme bi fan ngay jaar pour jot si ak yan critère la programme bi àndal mais déwén incha allah dina nekk lu romb CRD day nekk gox-goxaat koñ ak koñ et su boobaa liggéey bi am nañ yaakaar ne li ci président Macky Sall namm te muy ñëpp bokk dina tàmbale am incha allah.